vidéo bi ngeen di waaj a seetaan TFM le 4 juillet 2023 Et ci biir waxam di nga sentir ne menace dafa menace il fait allusion à Ousmane Sonko ne Sonko moo woote gatsa gatsa pendant trois ans boo leen seetaanee li ba pare <laughs> ma tegal wax pendant trois ans ñetti at ñu jàpp ñu ci parce que dafa bëgg a Réumi, mi téye nguur pouvoir bi ay nit euh, mais qui a appelé les gens à sortir ku wax ne nit ñi dañu génn reyante ku wax ku wax mortal combat ku wax gatsa. gatsa donc moi j'ai du respect pour ma sœur je ne vais pas parler de délire parce que nit wax nga ne ko nit bu waxe un nga ko ne gëmuma li ko wax wala li wax du lolu la mais do ko wax fay délirer euh, budul euh, les efforts de renseignement de coordination des renseignements de la sûreté intérieure au Sénégal budul won woon leneen la ñuy wax dëkk yoo gis boo gis léegi dafa am menace yu nga xam ne façon yi menace yu bees la ci réew mi moom moo tax ba la doctrine d'utilisation des armées ni ñuy utiliser dafa changer dafa soppi Naby Vision réew du xaar ay nit ñëw taal bomb duñu ko xaar encore que fact ça c'est factuel ay nit dem nañu Cap des Biches sànni fa ay cocktail molotov am na c'est pas c'est pas du délire moi je ne délire pas je ne suis pas quelqu'un qui délire. tey jii dafa mel ni génn na ca la mu waxoon lii la waxati. ndekete mën na ciw mën caa mën ca rërër. Gilles Diop daal ci na muy waxee dafa mel les événements de mars 2021 ba février 2024 moom jouer na ci rôle boo xamante ne moo tax dëkk bi tàngul moom daal raxas na jëmmam ji bam set. raxas Seydina Ousmane. Gilles unku la fu mu porte la nekk di ut waaye fii buntu yëpp lañ tëj fenêtre yi mom dañ ko encastré. donc bi may wax né nañu amnistier lool la bëggoon a wax y avait un millier de jeunes yu nekkoon ci kasso bi ak deux leaders politiques yu nekkoon ci kasso bi ñu wara dem élection ken bayyi wu len té gisuma benen façon bu ñu leen mënoon a bàyyee bu ñu amnistier ñep ñu genn ña demoon seeti makki muy leader opposition man maa leen wax ñu seeti Macky ma ne premier point de revendication ne leen ko da ngeen mu bàyyi Ousmane ak Diomaye Nabi Vision maa leen ko wax am naa preuve li may wax mooy bi ñu dàqee élection présidentielle bi bi ñu demee seeti Macky ba président Macky Sall woo leen ko posé mooy bàyyil jo bàyyil Ousmane ak Diomaye mon hélène je ne suis pas opposé mais nous opposant la wala ñoom Pierre Goudiaby Atepa pas ñoom euh, Alioune à ak yooyu opposant il laa la wax loolu avant le dialogue du mois de juin ou après le dialogue du mois de juin après après après bien après avant juste avant l'élection mais jamono opposant yu bari nous ngi préparer candidature ou a campagne oui juste moment bobo la fait que nous sommes les stéréotypes, les stéréotypes. Pouvoir à 1 900 000 voix. opposition cours du chant, pourquoi 1 600 000 voix Voilà. Je pense qu'il est temps. Par la plateau télé, nous nous revoyons. Il y a une bataille. Il y a une bataille. Avec l'eau, la bataille. L'eau, la bataille. nangul li ko yàlla may. Naby Vision. tey ji bu fekkee sa haine dalaa poussé ba ngay jaawale benn parti poli benn parti politik muy Pastef mi nga xamante ni moom moo dem jàmbaarlu ak quarante parti quarante parti ah Badara am un million neuf cent mille voix parti Pastef quarante parti ah mën naa ne sax 40 coalition sax mun naa koo wax 40 sax laay wax 40 coalition sax laay wax nag boole ñooñ ñu ñëpp bu ñu boolee seen doole ñu ñëpp nag ci 40 liste yooyu 40 liste bi bu ñu boolee seen doole ñoom ñoo am 1 million cinq six cent taxul sax ñu dépassé benn parti politique mais c'est à ba dara c'est à féliciter benn parti politique 1 million cent mille ak 40 liste un million 600. Badara xanaa sax yow ñu la yeewoon xaaju guddi ne la Badara opposition bi liggéey nañ war nga wax waaw nangu naa liggéey nañu mais gàcca ngaaraama à Pastef yéen nii moom soxor dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg nag moo nekk nii Badara lu a jaral lii Naby Vision mais seen xol day gën di bonan ah. ñun mënuñu si dara instant bi ñun suñu mission yëpp accomplir nañ ko rek benn affaire rek moo ñu dese instant bi ñun patriote ñu dugal loi boo xamante ni patriote dañuy sëy seen biir ku ne jël li nga moom man ma xëcc Bamba Ñas taf ko sama kaw ñokkaleeg moom ca kaw. Badara est passé de de de de politicien à chroniqueur maintenant il est il est redevenu politicien opposant mais seulement manteau chroniqueur mais maintenant leer na et je pense que ce qui s'est passé avec le doyen euh, avec le doyen avec le doyen Kama. wane na ñaar dimension ci moom que ne moom Amadou Ba la fa toogal gars yi la fa toogal système bi la fa toogal mais au delà de ça en fait Badara bi doon woo xale yi bay génnee ay zembre nañu yar xale yi na nañu tudd xale yi nañu nàngam na nañu nàngam moom moo toog jàkkaarloo kamal mun naa comprendre nga nekk ci contradiction mais mu am nu mu waxee moom moo tax fii ku wax feeñ ku wax feeñ c'est le même Badara qui bi doon justice bi bi doon saaga politiciens policier, bi doon saaga policiers yi bi doon saaga bi bi mais c'est juste pour dire que c'est cette génération de Abou Diallo Tahirou Sarr Badara qui nous ñoo àndoon avec Idrissa Seck Idrissa Seck à l'époque dafa fait ànd Abdoulaye Ward, ñu jàppee ko comme koo xam borom Bop. la. Nabi Vision. mais borom Bop, borom Bop bi mooy. buy toog di wax naay ba ma toogee di reeree tel hôtel bu mag ba ma toogee tel kilifa ba ma Elon Musk kii nii ba ma Mark Zuckerberg defee nee ba ma Obama defee nii ba ma kii defee naa xam nga ci yooyu quoi discours policier yooyu noonu waaw xam nga wala mu jékki-jékki ne la Macky peu mais peu xam nga yooyu noonu quoi mooy le discours voilà ñoom ci yooyu la ñu nekk langage bu voilà ñu amoon nag ambition Idrissa Seck en 2004 mu am jafé jafé ak Abdoulaye Wade en 2007 mu génn prison pour une première Fofu, la foofu la ñu caravane ay Hummer di ñëw ak doole ju bari manam image bi rek dang koy fond même ñi di wax ay affaire ay Ousmane Sonko gis nga il fallait voir Idrissa Seck mu génnoon en 2007 ba tek Hummer bi ba ba genre euh, euh, équivalent ñom limousine ak ñom momo yi nit ñi ñoo xamul rek naan Ousmane Sonko li muy def nii moo fi am Il Seck dina bu génnoon ba gaa yi dar xaama bi ay ngëndem maamu nit nga doon gis ñu wër ko Idi lii mooy génération bi moo àndaloon nekkoon nag espoir Idrissa il était tellement confiant tellement sûr de lui dem leen ngeen gëstuwaat de moom moo ne woon je suis né pour être président mu prédire que ne sax il sera le quatrième président dans l'histoire politique du Sénégal Dès qu'on wax je suis né pour être président parce qu'il n'y avait rien à part moi à part Abdoulaye Wade. Nabi Vision. c'est-à-dire c'est des jeunes qui ont ils avaient l'assurance et la certitude qu'ils vont récupérer le pouvoir ci Abdoulaye Wade ils étaient sûrs que Idriss Seck Devait être président Idriss Seck en fait Idriss Seck il a été président dans sa tête avant même bu orange bi exactement avant même avant même ñuy dem élection 2000 avant même euh, ñuy dem élection 2012 euh, mille deux mille dans sa tête il était déjà président en fait moo tax bu ngeen setlo Idrissa Seck bi ñu demee élection mu am débâcle bi mu am il n'a jamais digéré le fait que Macky Sall nek président bu ngeen xoolee da doon tok sa jékki-jékki nan on leen son discours en 2012 bi mu problème 2012 2013 moom xam nañ ne président jarul mu koy wax maanaam Idi dafa jàpp ne Macky Sall dafa jël place am Idi dafa jàpp ne Macky Sall dafa jël place am il n'a jamais accepté au début que Macky Sall Macky Sall nekk fa. moo tax un an mais un an après il dafa fait dem yoonam parce qu'il ne pouvait pas accepter wala mu di gérer bi ba affaire yi affaire yi dëgër ci moom ba Macky jekk ko ba ba mu moom bu la maîtriser da lay fooye moo tax Macky da ko jël fooye ko parce que Macky li mu def Idrissa Seck nit koo nit ko xam am nga ci moom cofeel wala am nga ci moom tuuti considération doo ko def da koo toroxal en fait da toroxal waaw vieux sanjëri garde corps bi c'est-à-dire ñooñu ñoo yéeg ànd ak Idi Idi di yéeg di wàcc mais il dit nit ñu jaay woon que ne xel mi la nek mom la lay tay bo ne les jeunes de réew mi lan moy sen idéologie kenn du la ko wax lan moy sen identité politique kenn du la ko wax batti ti ba tey Idrissa Seck boo ko koy rattacher à Ablaye Wade parce que ce que Ablaye Wade a réussi à construire en termes d'idéologie en termes d'image autour de sa personne ci charisme bi mu àndaloon Idi n'a jamais su faire cela en fait Idi était un bon second mais c'est pas un bon leader nabi Vision et limite yoy ñom moko ko